alors ba tey ñu ñëwaat ci seen émission bi di mbàkkaan euh, lii di rubrique jomb jomb ku ñu toogal dañ ko koy laaj ndax nag bari na ci ñoo xamante ni kinne euh, dañoo jàpp ne rek bu ñuy génn ci écran bi euh, bari na ci loo xamante dootuñu ko jombate wala ndax dinañ ci yenn milieu yoo xamante ni dañuy li ñuy gis tax na dootuñu jombalete dara ci seen bopp mais en tant que doom buur géwal fecckat sénégalaise kinne tey lan lay jombale bopp waaw mën nañ li may jombale sama bopp bari na mm-hmm. parce que gaa xale la mais dama teel a nekk responsabilité parce que sama famille amul ku dul man ma nekk ak sama papa sama yaay bi mu génnee àdduna yàggul ñu ci weeru koor bi jombale naa sama bopp nañ may dégg ci lu ñàkk fayda jombale naa sama bopp may fen jombale naa sama bopp ci may dox ci loo xam ne amul benn sens li ma jombale sama bopp daal su ma koy lim fii du ma fi jóg parce que wax dëgg yàlla nit bu du nit bu amul lu muy joom moom kooku du nit man joomu naa nit sax teg ma fenn di ma wax loo xam ne du ma mën a tontu damay bëgg a chaque fois lépp lu ma nit gisee gisee may gis ci lu baax ci lu yiw parce que wax dëgg yàlla ni ma nit ñi di seetaane noonu la ma suñu waa kër di seetaane te dara gënul ñaaw nga toog ñu wane sa rakk mu matadi mu manqué wala mu def dara yow fam lay yegg yow ak yàlla rek ko xam te loolu jombale naa ko sama bopp waxatuma laa ak ma nekk géwël mhm. am na yoo xam ne moom dama koy bañ ba dee. waaw wax yàlla. allah eh, képp kuy góor sax nag war ngaa jombale sa bopp loolu li nga fi lim rek eh, bokk na ci li nga xamante ni ab xale bu nekk ndaw bu nekk da koy jombale boppam ndax nag bu dee yàlla dafa def nga marqué sa empreinte ci réew dafa xas di ko dindi à travers la danse donc ci bari yu mel noonu comme ni nga ko waxee rek. ñu ci koo xamante ni day def lii ngay def it dina ci sukkandiku. Mm. yal na ànd ci barke Sëñ Tuubaa yàlla gën la cee jàppale. amiin amiin amiin amiin alors Kiné ñu ñëwaat ci beneen question tey Kiné bu ma ko doon laaj lan moo ko gën a marqué dans sa vie lan lay doon. Euh, man nag lu ma marqué mun naa ne bi may bi may joué ji Zénithu Viviane. marqué na ma parce que lu ma ko yéene woon la. waaw boobu mi ngi doog a def zénith waaw boobu yéene naa ko ci sama biir xol bi te bëgguma woon lu dul mu am ci ndam te suñu borom noonu la ko namee noonu la ko defee waaw parce que bi may dem lépp maa ngi xool boo xam ne mooy sama xol rek sama xalaat lépp maa ngi koy ñaanal réussite totale xam nga bëgg daf fort te nee naa ko booy lim say fant jarul ngay commencé ci mbedd bi ñëwal ci man may première kon neex la <laughs> loolu marqué na ma bu baax a baax a baax ndeysaan ndeysaan mu nekk lu euh, juste boo ko déggee muy wax da ngay xam ne nitu kase la mm-hmm. euh, te loolu rek la ñuy doyee nit sama maam nee na ma caat ma ne ko mu ne ma nit du lii bu sa xol léger rek foo dem da ngay mën a bokk te looy sumbi da nga koy daal te koo àndal day jël premier donc yàlla la yàlla defal jàmm si ya jubóole leen bu baax ba dara du xaj seen bi incha allah ci bu ma jógee nag ci lii la gën a marqué ndax bokk na ci lii lay gën a neex si c'était lan lay gën a regretter si àdduna waaw man nag ay lu may regretter affaire yooyu kon man commencement bi boo musaan bind ci internet du ma nelaw waaye ah dama daan jàpp damay làkkatu sax naan sama sëy lu ñu bind commentaire bi lu mu wax lu mu def nii mooy mooy def may stressé wu di def am yoo xam ne moom ñaanuma suñu borom sax fi mu toll nii di ciy jaaraat ba mu ciy dundaat moo tax fi mu toll je sax que ma seetaan li ma war a seetaan après la ca des non nit ñi la parce que nit ñi mënoo dab seen bànneex tey boo xeesee ñu ne li tax mu xees dafa war a ñuul nga ñuul ñu ne pourtant dafa war a leer tuuti waaw yu bari nag moom wax dëgg yàlla maa ngi ñaan suñu borom mu faxasal ma yu bari daal ci sama kii yoo xam ne bu dee erreur la yu ma mus a def maa ngi koy jéggalu bu dee yoo xam ni neexul nit ñi tamit maa ngi koy jéeglu mais wax dëgg yàlla moom. Mhm. commentaire yi ma doon lii kon ma jëy saa ñu ne ki lii ki lii. daf la daan stressé loolu moom wax dëgg yàlla dama doon def sax du ma nelaw. ndeysaan may dama naa lii dara jaru ko fi parce que man dama koy def pour pour bégal sama bopp. bégal nit ñi. Mhm. mais pas pour di bégal di def loo xam ne damay jàpp ni damaa ngi bégal nit ñi fekk maa ngi stressé wu non. day mujj metti te sax nag tubaab nee na quand la passion rien n'est programmé rien n'est calculé tout se fait naturel. également te comme yàlla def na ni euh, avant de faire plaisir à l'autre il faut se faire plaisir euh, am na loo xamante ni jarut a calculer ah, su ma juumul en tant que euh, tey petite sœur ñun ñoo opté nekk au devant de la scène te oto bi jiitu la ñuy corné donc yàlla na la yàlla may courage daal <laughs> boo ko mën a accéléré <laughs> di avancé aca jomb jomb jeex na dañuy ñëw duggaat rek ci li nga xamante ni mooy top du jour donc samp plus tarder ñu daal di dem dikkaat léegi à tout à alors jili ba tey nag euh, comme Kiné Badiane la ñu am invité ma rappelé ko rek ñi nga xamante ni ñu ngi soog seetaan alors Kiné euh, ku ñu mënti dem dañ lay laaj euh, li nga xamante ni mooy sa tëb du jour fan nga koy accentuer tëb du jour nag du dara lu dul nga wax lan mooy sa cri de cœur lan moo la gën a loo doon loo xamante ni tey boo ko bëggoon a changer ci réew mi wala ci milieu bi lan ak lan lay doon. mi nag fi mu toll nii dara toju ko lu kaa nit ñi bëgg kaa fu ngay doon foo leen fekk kaa kaa sur non pourtant nit ñee jël kaa fi mu toll nii man xaw ma mord la xaw ma lu mu doon man daal man comprendre ma sax fi mu toll nii. léegi détaillé ma kaa kaa mooy lan. man boo ko xamee xaw ma nu may jëy saay kaa kaa kaa mais man wax dëgg yàlla wadd laa ci xam naa xaw ma. waaw bu mu ci munti doo xam nga àdduna moom nit ku ne war nga mun a maanu boo xam ne mooy sa bopp war na laa doy parce que kenn ku ne boo xoolee sa bopp rek am nga loo xam ne war nga ko mën a lijjanti. mi ngi noonu. te Sénégal fii dañoo bëgg wax waxi jàmbur quoi foo ci fekk nit tey jii nii sax du la xam mais mun na la seedeel loo xam ne kii toog sax moom mun na tudd yàlla waaw yooyu moom yàlla ñu ci yàlla musal loolu rek moo ma ci metti parce que léegi da gis euh, ci statut yi sinabi tout tey ku ci am la metti ñëpp a koy xam waaw da ngay bind da ngay def lu ne te xam nga loolu moom du du aad waaye gaaruwaal te yooyu demul quoi parce que bu ëllëgee mun ngeen juboo te boobaa nit ñi lañ jàpp la ñuy jàpp waaw ñu rafetal ko moo gën quoi wax dëgg yàlla surtout ñun jigéen ñi ak góor ñeeg yëpp war na mun a nice quoi ku ne yéene sa bopp jàmm quoi. ku ne yéene ko sa borom. ba tey sax ñu ne les images euh, dafay s'envoler mais les écritures day rester te écriture ak image ak vidéo ñooy am donc euh, nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax loolu la fi ba Badiane bàyyi comme conseil euh, cas yi daal moo ko dérange à part cas yi dara dérange wu ko jii après nga détaillé ma lan mooy cas dégg Adja <laughs> Kiné mu mel ne tabaski bi yaa ngi koy waaj de. waaw tabaski bi moom kon d'habitude li ma lay wax rek man tey nga mos a ñëw sax ma takk perruque waaw parce que sonn naa ci wat yi xool naa fan yii yëpp sama bopp bi ay coupe rek moo ci nekk man nañ fi nga ma fekk nii fii laa am. ndeysaan. muy salon benn. Mhm. waaw ma ñëw fekk fi sama yaay Xadi. ndeysaan mu accueillir ñu ñu damay dalal ba ma kontaan. Mhm. ñeme naa ko parce su ma amee émission ma daw si ñëw fii moom moom ko lebal mhm. Mhm. fii nag la tabaski bi di xewee xale di tànnaas ñii di laal mauve ñii blonde ñii rouge ñii orange lépp lañ fii def nag traitement ak lépp waaw man moo xam naa du ñax ni sama yaay yi denc laat na ma beneen couleur bu ma mun a def waa en tout cas daal maa ngi wax xale yi ñu amul karaw kon sama zang yi mun nañ ñëw fii ci salon benn ci manège bi nii nii ci Bourguiba bi bu ñu ñëwee dañ fi fekk ñoo xam ne ñëpp a gentil fii ñëpp lay accueillir defal li nga bëgg waaw fii moom ça va waaw numéro téléphone bi nag mu ngi nii 77 646 50 29. ndeysaan waaw aja mi ngi noonu képp ku bëgg a ñëw ci belle coiffure rek mën ngaa woote ci numéro yooyu. waaw ki ne wootee sànq euh, euh, um, tudd sànq. su ko mhm. defee nga daal di ñëw ñu defaral la ba nga ba nga tànn. dafa mel ni sax di nga ñëw parce que fii du coupe kase la ñuy def dañuy def traitement mun na la tegal mun na la defal li nga bëgg sa jeex allah bi loo waaw tabaski bi nag waa nii nii moom sama yaay ji këfati na ma xam naa dañuy daw rek. dem Côte d'Ivoire joué defee ko foofu. waaw xam naa tabaski boobu na doy waar na xam naa aceke laay mujj rek kii tabaskee woon kon neex na. waay. kon neex na man mi tamit am naa fa benn chéri fu ma yeggee naa ko fa fekk Balotelli waaw. kontaan nañu l'émission tire à sa fin makkaan la woon tey ki ma invité woon du kenn ku dul ki Neba Diagne alors dama lay bàyyi rek nag nga tàggatoo ak yi mais aussi ak am di jàmm yi nga xamante leer na ma ne tey bi bi doon na toj ndax ñëpp kontaanoon nañ ci invitation bi. waaw loolu léegi sant yàlla xam nga Kiné moom tey sant rek foo ma fekk ndax man élément Serigne Saliou la yi ma metti bariwul waaw gis nga ndax ñun maam defaral nañu lépp ci bànneex waaw dëgg yàlla di nuyu sama papa bu baax a baax moom nga xam ne sama xarit la sama féete sama lépp la di ñaanal sama yaay fi mu nekk mu gënal ko foofu fi mu jóge nii waa di nuyu nag Collé Collé fay sama yaay moom mënuma def émission te duma ko tudd parce que ragal féete day wàññiwoo sax moom sama yaay la sama xarit la moom tamit xam nga yàlla damaa baaxee ñaari yaay yoo xam ne ñoom waaw dara fayu leen. waaw gis nga moom moom tamit day jàpp ci man bu baax a baax. bëggul lu rek may bel. daal del benn rek bu nit ñi di wax del benn rek waaw mu ne ko amul problème. Oh, jàpp bu baax waaw baax waaw maa nañ di nuyu euh, Yaama. muy sama xarit bi ma àndal la xam ni wax dëgg yàlla yàlla moo ñu boole. waaw mooy sama moom waaw moom lépp lay def maa koy sant di ko gërëm di ko wax man ak moom daal ku saag wëñ rek waaw. nas ñaw waaw baal wax lu mel nii waaw nuyu naa ñëpp nag ñu nuyu waa NGB ñaatali waaw xam nga foofu la am fa laay tiitaroo ndax fi nga juddoo màggee fa yaroo fa foofu nga am waaw maa ngi nuyu waa ñaatali bu baax a baax a baax di la wax merci caat tamit kontaan na mais di leen wax nañ caat am na lum leen di nëbb caat day toog rek di leen koy wax mu <laughs> ak kontaan nañ bu baax yow nii rek nga mën a mel ndax dañoo bokk luñ mënta séddoo ndax man sama lépp dama ko jox sëriñ Saliou Mbacke suñu yaakaar tey ëllëg ndax day sëriñ bu dul lore am nga nag weeruwaay bu mat weeruwaay bul tiit bul ragal ba jaar ci kàttanu suñu borom yàlla da lay defal jàmm yàlla da defal tawfeex te maa ngi la koy ñaanal maa ngi koy ñaanal de tout cœur yàlla na la yàlla defal yàgg yokk tekki jariñu ci barke Seydina Muhammad nit ku baax nga nit ku disponible nga euh, su ma la woowee jotuma la sax yaa may rappelé donc yàlla na yàlla defal tawfeex alors c'était kan fii ci Sénégal 7 suñu invité woon nekkoon ki nga xamante ni mooy Kiné euh, Badiane ma bàyyi may wax bajaan moom laa taam <laughs> Kiné Badiane at euh, ci kàttanu sunu borom ñu amoon plaisir dalal ko fii ci Sénégal 7 euh, nekkoon nag it plaisir ci yéen ñi nga xamante ni xaw nañoo gëjoon a gisee kontaan nañ tey jéggalu bu baax li nga xamante ni mooy gëj a gisante bi bu baax a baax a baax dañ leen di wax incha allah beneen numéro émission ak keneen ci makkaan d'ici là portez-vous bien et passez une excellente soirée bye